Yeah. Good morning. discusión Matt, no. The cameraman. Okay. Am I blocking? Am I failing? I don't know. I'm Charlotte. bon man la maréchal des logis chef El Hadj Omar Bey Samb euh, bu nekk gendarmerie euh, plus précisément GIGN. ba tey kontaan na ak ci sa gars yi. waaw tey ma kontaan nañ kontaan nañ trop parce que épreuve yi fi am ni euh, defe nañ ko ni mu war a daal joxe nañ le maximum de nous yi ñu am lépp def nañ ko ci quoi waaw. léegi lan lan ngeen jotee def durant tous ces temps ci temps bon quand parle de challenge euh, en ce qui concerne ces genres d'unité unité yu mel nii donc dafa doon genre compétition la boo xamante ne nii ah dañ siy def ay épreuves yoo xamante ne unité d'unité d'élite yi comme ay GIE jeunes fii Sénégal force spéciale ay BIP euh, seen genre entraînement yooyu moom la ñuy euh, répercuter si compétition yi moom mooy doon épreuve yi ñuy def ah yeneen pays nag yu jógee biir Afrique voilà ba compétition bi tey yaakaar nga jël ndam waaw waaw waaw xam nga kenn du dem compétition te naan yaakaaruma ko jël wala kenn du dem di bëri ji danaan may daanu mm-hmm. donc euh, ba décision finale bi daal ñun dañuy jàpp ne daal ñoo jiitu waaw. ba instant yi pare ngeen pour éventuelle attaque ñan ma ko su amoon on parle de ces gens d'unité ñoom duñ noppalu ñëpp Sénégal yëpp a ngi leen di gis chaque jour ñu leen di romb ak oto yeeg fu ne ñu di fa dugg ko génn euh, éventuellement ñëpp xam nañ ne menaces yi am si jamono biñ toll nii. donc euh, mooy waral entraînement yi ndaje yi parce que daf ñuy permettre ñu jàng lu bari am jàngat bu bari parce que fu ay nit yu bokkul dëkk daje rek da nga fay jàng culture yu bari daal lu ne dañ ko ci jëlee donc loolu la ko cinq jours la woon lundi la woon ba vendredi du woon formation sax mais comme ni ñu ko waxee challenge la woon quoi genre compétition teg ay matériel am am solo. waaw comme boo ko bëggee comprendre nag li projet la. Sénégal moom moo ci amagul unité bu mel ni ay SPR mooy ñoo ay unité yoo xam ne dañ leen former pour ñuy euh, taxaw. Euh, soldat euh, kii ambassade américain yi ressortissant américain yi fi ne ak euh, seen ambassades yi ak yow sa ressortissant dëkk donc ñett yooyu yëpp ngay boole yor waaye nag ambassade bi moo koy mettre en œuvre Sénégal nag bon ñoom ñu ngi ci taxawaay boobu looloo tax ñu indi fi sax compétition bi. parce que sànq jël leen waa Kenya neneen matériel ni gis fii seen boss moo moo gën a jégoo dayoo. moo gën a waaw mooy mooy li ma la rek projet boobu déggoon ma ne la ñoom pays yooyu am na ba pare Sénégal moo si des quoi. Ah, parce que attaque attaque il a bari aussi. waaw looloo ngi si tamit parce que xamoo li ñu naan ki joto jot a dóor mm. ah ak ki ñu seen xeex mënul bokk. Mm. wala mu ngi noonu. mais yéen pare ngeen daal pour. waa ñu ngi ñu ah du ma ne pare nañ mais daal ñu ngi ñu ñu ngi sóoraale lu mel noon fu ñu toll daal. waaw xam nga kenn du pare di xaar lu lu lu lu mais fu ñu toll rek suñu suñu bopp bi ñu ngi si soorale na lu mel noonu daal buy ñëw daal ñu ngi éventuellement nuñ ko mën a paree ñu ngi sant yàlla daal nañ sant yàlla rek nañ sant yàlla ñaan lii nekk ni mu doon luy woy ba faw ko di remercier euh, ambassade américaine bi nga xam ne moom moo ñu si boole si affaire bi si challenge bi euh, di remercier tamit ñu suñu haut commission gendarmerie ak euh, directeur de la police ndax buñ fàtte ne ñun ñoo fi ne gendarmerie ak waa police Euh, BIP bu police donc euh, GIGN gendarmerie ak BIP bu police donc vraiment bon waaw ah, alhamdulilah daal sant nañ door nañ ko ni mu ko waree te représenté nañ Sénégal comme ni mu waree daal. Silasis I L A e S. Okay. Euh, ce que vous pouvez décrire l'exercice, l'activité de you know, physical fitness, endurance course, which means you have to prepare your man on covering all obstacles without. Euh, l'exercice de ce matin consistait à without euh, injuries and completing euh, the mission. Okay. Yep. d'un exercice d'endurance où il fallait préparer les hommes à tout obstacle pour la guerre. Qu'est-ce qui pour vous, dans cette semaine, était le plus, euh, le plus utile comme apprentissage pour vos hommes What was in this morning uh, la semaine, most toute la useful semaine, during the week What has been uh, most useful for your team this morning about the, the activity they did during the week? During the, all the week, right? Yeah, the week has, was good. We started on Monday. I think tag met was good. We went on long range was good.

barricades, oui. Les barricades, euh, le de tir euh, et différentes autres stratégies qu'ils ont utilisées dans, les, dans de tir étaient vraiment utiles. Qu'est-ce que ça apporte de travailler avec euh, des policiers, des agents de tous ces différents pays Uh, how what does it to work with these different countries uh, policemen and agents here in senegal i realized I don't know if the police participated, but we are police, police special unit. But most of the countries I see, like Senegal here, military, there are military. So in terms of equipments, we are equipped as Kenya. I see them also equipped with the same, almost the same level. But now the threat level, comparing Kenya and Senegal here, our threat level in Senegal in Kenya is high terrorism attacks. Yep. Ok. Euh, mm. Voilà, a dit que euh, matière d'armement, il a vu les, ce que le Sénégal a utilisé. Et pour le Kenya, s'il fait une comparaison, il voit nettement que le Kenya est beaucoup plus équipé en armement que le Sénégal. Mais que la menace terroriste est plus importante. au Kenya, La menace terroriste est beaucoup plus importante au Kenya. Le Kenya a gagné l'année dernière, je crois, la, le challenge. Euh, Est-ce que vous voulez un deuxième trophée uh, Ken, Kenya won the challenge last year. Now, do you like to have a, a second trophy yes. this year? Yes. Oui, parfaitement. I hope so. Je pense yep. bien. Oui. I wish so and I hope so. À votre avis, dernière chose, qu'est-ce que les, vos, vos hommes avons apporté, rapporté comme expérience au Kenya après euh, cette semaine. Now, uh, to, to your point of view, what are your men going to have as experience to your country? What are you going to tell as an experience to your country, Kenya, this week, all the week long? Like the experience I will tell, one is training. They have to train hard because it was never easy. Every competition I saw it was tight. each was competing well. So back to my country, uh, the team will tell the other guys that we need to train, maybe introduce other training that we don't have back our country to the training that only we have it. Ouais, il a dit que euh, l'expérience qu'ils ont eue, c'est la formation d'abord. Ensuite, euh, vraiment, euh, la formation a été dure, mais surtout l'expérience qu'ils ont eue, c'est que qu'ils ont eu des stratégies qu'ils ont, qu'ils et qu'ils n'ont pas peut-être au Kenya. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir au Kenya. Par euh, can you say about in training you don't have yeah shooting from barricades the one that you lie down then you shoot when you are lying flat on the ground Youssou Mbarguen. Par exemple, celui qui consiste à se coucher carrément pour, euh, les tirs sur les barricades, cette stratégie-là, ils ne l'ont pas au Kenya. Cette façon de faire, de tirer, on se couche carrément, on s'allonge et on tire sur les barricades, à travers les barricades, ils ne l'ont pas au Kenya. longues, en fait, de euh, faire des, des, des, des courses en tirant sur des longues distances à des cibles différentes comme ne l'ont pas au, au Kenya.